Assalamualaikum chers gens de notre Dag Assalamualaikum yeen ya, ñi nga xamni yeen ya, ñi safo, yeen ñi xamni ñi safo un peu partout dans le monde entier. Eh, tay ñi ngi ni fas Mbaw, euh nakar mo ñi fi nak. Muy le grand champion l'ancien tigre de Fass, gendey Dakar, gendey Senegal, muy mbeyge le tigre de Fass. Mo mo genn aduna. Wa tay ñi ngi ni kërëm fi ci Fass Mbaw. Mo li ñuy wax naan kulun nafsi salihatu mawtin. Bakkan bu ñam dund dina ñam de. muy Mbaye Gueye di champion bu mag Mbaye Gueye mooy champion bi nga xam ne moom moo amoon combat cortège président de la république pousse xajal ko mu ñëw kooku mooy Mbaye moo génn àdduna nag tey ni ñëw fii këram ni ngi ñëw jaale si dañuy ñëw jël fi ay témoignages jox tàll micro ay raxam ay champion ak ñi nga xam ne ñoom la bëre loolu ak ñi nga xam ne moom la bokkaloon génération muy Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla na suuf oyof si kawam ngeen koy amee fii ci ak seen doomu nday law der jërëjëf gars yi jëmale ko ci ki nga xamante ne moo muy Adja Guèye damaa bëggoon ay mbokkam dégg lépp lu may wax nii waa Fass Mbao yëpp tam dégg li may wax nii àddina yëpp dégg li may wax nii ndax loolu lu ma dund ak moom la man Moustapha Guèye lu ma dund ak jabaru Mbaye Guèye la te bu ma ko dundee ak jabaru Mbaye Guèye ji ajaa mooy sama grand frère yëpp toog dund nañ ko ak moom ndax yëf yi ku nekk xam ne tawat bu amee ca njaboot lay commencé sa njabootu bopp ba yaatu génn ci njaboot yéen yëpp te njabootu bopp nag doomu aadama yi nag kenn mënut a gën kenn mënut a gën a weesu jabar ji fanaan ak yow di yeewoondoog yow. damaa ñëw fekk ko mu sonn trop ci grand bi sonn sonn sonn sonn ba toqi ma fekk ko fa looloo waral bu ngeen déggee Moustapha Gueye Mbaye Gueye mu ngoon kër Moustapha Gueye damaa jabar gi dafa sonn daf cee nekk mu ne ko yow boo continuer non seulement sax grand bi yaay njëkk a dem grand bi yow ndax en général tubaab dafa naan un boo koy suivre di ki def sa énergie soo mën sax jiitu moo tax ñu ne malaat dañ koy échanger dañ koy séddoo kii jàpp kii jàpp kii jàpp ba mu wér ah ku nekk xam na ne kat jafe na jafe na trop ci jamono ji toll nii nga am jëkkër ngeen am njaboot wala sax amu leen njaboot lépp neex lépp baax nga dem ba lépp neexatul lépp dara baaxatul nga jëm mag am feebar boo xamante ne da nga ko war a gunge gungé bi nak xamoo ñaata at la donc nak mën nañ misal rek ne 1 an et demi la mbéy tëdd at ak genn wala la tëdd té ara genn wala yépp jabar yi dawo ci ni ñuy wax daw ci ñaari salaam alaykum su mo sa ñew diko jël ci diko yobbu sax day lank bañ néw non non du dem man ma wax def lepp mu ne ko deet ñu dañ lay dimbali lepp lu ñëf ci mom yoon lañ ko defal bu grave tam bu musa am tok bu togal kër ga wër rek day day da no damay damay dem donc da doon jaabante diggante kër jabaram ji ak ay njabootam ak kër rakkam ji ji ci nekk ca liberté 6. danaan toog ba mu sax mooy damay dem léegi léegi léegi nii te bu ko xasee waxoon moom du ñu am jàmm foog mu dem bu demul du ñu am jàmm danaan sax damay wàcc damay wàcc jël si dem da ngeen may fontoo ku nekk xam na mbéyge yéen ñu xam meenti xar xaraak ak xadaram ak ah waaye nag xoolu mbéygee nag moom ñun sax dañu ñaan yàlla bëggoon ko am ñun Moustapha Gueye xam nga boo xoolee da nga am Moustapha Gueye moo gën a baax moo gën a ñaaru moo gën a nangam mais man de gisuma ci Sénégal wërngal képp ku ci gën mbéy xool amul walaay azim donc soxnaam soos di Adja dañ koy ñaanal yàlla ji nga xamante ne moo ko booloon ak suñu mag yi di mbéy géey njaboot yi ñu ko bàyyi ñu barkeel ba lépp lu lënd moon ñoom ñu leeral ko ndax kat amul dara loo xamante ne amul kenn ku bugg ñu doon la ku lu doom bi nga jur yàlla nañ doon ci moom jikkoom moom mbéy géey doon ci moom jomam doon ci moom ah, lépp loo xamante ne mooy doon doon nit ku baax ay tout temps la fi bàyyi nag yu am ay juróomi at juróom-ñaari at juróom-ñetti at mu am juróom-ñaar fukki at ak lu bu mu dem bay am ay doom yu am juróomi nga xam ne kon jabar ja ndaw na donc dañu bugg wax ne mbéy gee jabar ji mu denc nii muy Adja mbéy gee mën na ko bàyyi moom mu bàyyoo ko nag di ko jox ko respect jox ko cër bu ñun njaboot gu ñu xam ko donc nag képp ku yëkkati kàddu képp ku nekk Sénégal dañuy wax ne jabaru mbéy ngi yi mu fi bàyyi mu ajaa dañ ko ñaanal yàlla yàlla tekki loxoom njaboot bi ñaan ko yàlla mu gudd fan ak wér yàlla moom tamit ndax sonn nag sonn boo xamante ne kat ah man de gis naa ñu bari ñoo xamante ne bi seen jëkkër toll ci jamono yooyu dañoo rek ci mbaa ñu dafa jafe dafa jafe woon trop danaan sax lànk pour mbéy jóge fii waaye nag comme que grand bi daa taamoon kër gee kër gi kër gee ça lui faisait du bien alhamdulilah bi amin donc daal Adja mbokk yëpp ñi nga bokkal meen ci ndey ak ci bàyyi yëpp ñu leen di seedeel ñun la famille Guèye am nañu sa ngërëm doon na rafet nag di jekk trop bu mbéygee gërëm la waaye ñaanuñu sax yàlla mbéygee gërëm la parce que sa jabar boo koy gërëm day fekk mu faatu tey jii bu doon sens contraire moo am ci taxatu gërëm mais li ñaanoon yàlla mooy ñun ñu toog di la gërëm ci place am ndax fi mu tolloon moom xam nañu day dem ñu accompagner ko ba mu dem alhamdulilah rabbil alamin donc moom ñu koy ñaanal yàlla di ko mu xam ne njaboot gi daal naka bu ko mbéygee tegoon ñun ñëpp nag ñun ñu fi bàyyi ay rakam dañ ko teel loxo boobu na jàpp ne ñun daal mbéy fi ne ba tey dem na wuute rek waaye mu ngi ci wetam mu ngi ci ndajooram ci càmmuñam dañ teg loxo njaboot gi yëpp dañ ko teg loxo incha allah.